jërëjëf euh, mbokki internetu Sénégal set yi tey seen xarit seen soppe Père Mbaye Ngoné Fall ñëwati na ak yéen ci pays yu mbër yi nekk Sénégal set nga xam ne doon na site boo xam ne moo lëmbee réew mi fii nu tollu tembe moom nag day jeex li muy laaj boo ko teg gaa yi di laaj ndax ki muy laaj da koo xam ndaxte defe naa ne tey soo xoolee stade bi làmb ju ne am na fi waaye lu jiitu stade bi dafa am ay stade yu fi nekkoon ban stade moom la Mbaye Gueye la Tigre de Fass dóoree ki nga xam ne mooy robeer mu daanu fan la Double Less dóoree Papa mu daanu fan la combat yu métti yu métti yu métti ya daan am fan la ki nga xam ne moom mooy Daouda Fall dóoree ki nga xam ne mooy tubaabu joor mu daanu tey nag maa ngi ak koo xam ne dafa fekkee loolu lépp bokk ci Fass tey Père Ba nuyu mbokk Sénégal nuyu mbokk internet yi ma laaj la ci làmb ji waaye tamit laaj la si ki nga xam ne nee nga doon leen a boole dàq ngeen génn dem. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbokk internet yëpp euh, di sant yàlla li julli ci yant bi. Eh, di sant suñuy ñaari waajur di leen ñaanal yàlla xar leen àjjanay firdaws waaw li ma laaj dinaa ci sa war tontu mais Fass maa ngi farak Fass après 2004 parce que Papa Sow Ousa ñoo tax ma faral Fass mais man ku ma xam ci Manga 2 nga ma xam. waaw mais daan naa la ci stade bi ci ay jamono booba saw galgal ma nga Fass. léegi bi ñoom bi ma dëkk see parcelle ñoom Paso ak Ousa nekk samay doom dox xam ma ñoom du nekk sa mbër say doom la ñuy ne loolu moom ma indi maa ngi jëkk faral mbëru fas ci Ousa contre Bazouka ndax avant combat boobu Ousa dafa bëri Ibou Diop Ibou Diop bi nekk écurie ma faral Ibou Diop mais soo ko dëkk si Fass euh, dëkk si parcelle tombe ak Ousa ak Bazouka laa jëkk faral mbëru Fass Ousa daan Bazouka waaw. ñool bët ko kon. Euh, lan moo doxoon sa diggante ak saw galgal mi nga xam ne mooy papa papa saw waaw non bi ma ñëwee parcelle laa am ak moom relation mais avant loolu ñoom ndiir ak Moussa Gningue ñooñu xam naa leen depuis ay années 92. daan naa la fa gis ñoom depuis 92. waaw ñoom Moussa Gningue ak ndiir ndam si yàlla yàlla ko yàlla xar àjjana ñooñu samay wóllëre lañu. yoo xam ne démb ak barki démb. démb ñoo bokk grand place bi ñuy toog. Mhm. ñuy sama nit. di mhm. samay xarit ñoom xam nañ ne séeréer si laa foral mais bi maa nga bàyyee tombé ma dëkk si parcelle ñoom passé wu nekk ay xale usa ñooñu samay doom lañ mu nekk samay mbër loolu moom dugal Fass mais kon ba ngay ànd ak ñoom Moussa Gningue di ñëw grand place ba grand place fan la woon ba kër euh, na Nice wala place su Nice. wala dibiteri Chikori ñaari tali. ñaari tali dibiteri Chikori. waaw Pape Diop. mooy waa Fass xamoon na ne yow mànga ngay. ñëpp xam nañ ko. ñëpp xam nañ ne Manga lay faral. mais terewul ngay ànd ak ñooñu nekk Fass. en 1984 revanche Manga Mor Nguer. Mm. suñu directeur ñoo ko ci dugal man ak suñu benn xarit. Mm. ba mu joxee sponsor 2 millions 500. Mm. pour revanche ndax Manga mën a daal pour daan Mor li ma jaaxal moom mooy euh, Moustapha Gueye le tigre de Fass demoon na sax ba ñuy coow digganteem ak Manga waaye nag doonoo dema dem ba ñu lànk loo ko ndax boobu nee nañu mu bëreeg Manga baaxul ci moom. waaw xam nga bu ma déggee léegi ñenn ñi di wax ni. xale yi li ñuy def nii dañuy ànd bañu a bëri kii daw kii daw kii damay laaj lu tax Moussa Gueye bëriwul ak lu tax lu tax Manga bëriwul ak Mbaye Gueye lu tax Manga bëriwul ak Moussa Gueye laaj loolu lu tax lu tax Manga bëriwul ak Mbaye Gueye lu tax Manga bëriwul ak kon li ñuy wax nii yàgg na fi lu tax Boy Bambara leer sa bëriwaat solo ak Mbaye leeral. te yooyu yëpp ay combat yoo xam ne am na jamono jot ñu ko soxla. ñëpp soxla ko lu sax amul bu ñu bu ñu saaga histoire nañ respecté ñi fi nekk xam ne amul lu fi am te amu fi woon. man nag jamono boobu man gisoon naa nga laxasoo lool ak Fass. waaw mooy man Moussa Gningue ak euh, Ndiir samay xarit la ñu. vraiment ñi may toog ñu nekk ay Fass man ñu nekk ay seen ñuy ànd yëpp amul loolu amul benn problème donc ma xamoo nag aussi ne Mbaye Guèye si de champion après Moussa Guèye c'est un champion mais faralu ma leen woon. la moo tax nga am sañ-sañu taxaw ne Papa Sow faas sax su ñëwee mu bëreeg moom mais bokkatuñu c'est-à-dire damay dëggal léegi ñoom li ñu wax ne écurie yi war a bëree seen biir comme dàq nañu léegi kay mooy ñun bu ñu amee cest à école bi ku mu mën a bëreel mbëru faas mbëru keneen day bëreeg ñoom yaakaar nga ne bis ba comme Papa am na fa ay wóllëre ba léegi dina am menn mbërum faas mu am sañ-sañ jógee ci langu faas ñëw taxaw ci langu Papa Sow. ah loolu moom nañ bàyyi ba ci kanam xëy na ñu ñu ñu euh, euh, euh, dana amal doom mais loolu moom mbëru Fass yaa ngi noonu ñoom ñoo xam mais daal am na ci ñoo xam ne samay doom lañu. waaye te yoo xam ne am nañu kóllëre ba tey ak Papa Sow. waaw ak ak ak ñu ngi duggalante kat dem leen. waaw suñuy leen ñu demul làmb dina ñëw kër ga loolu moom fu moo los moo moo moo los diggante bi mais kon Papa Sow li mu wax kenn génneew ko Fass dañ ko dax waaw waaw mais nee na kenn génnewu ko faas kenn mu ko génne faas faas la juddoo yow ku fi nit fi mu juddoo da nga ko fa mën a génne mënoo ko fa génne am na ñu fi dëkk faas moom la ñuy faral loolu day am fa la juddoo Siteu gis nga ko mi ngi bëri MMA Papa Sow gis nga ko fi mu jógee loo muy mën a wax ci combat boobu ndax papa tamit xaw tuut mi ngi ci risque ndax jeunesse ba waaye tamit Siteu na teey bu baax a baax a baax te xam ne ki muy bëreel tëlewut a bëre. ñoom ñaar ñëpp combat bu décisif la am pour ñoom Siteu de ko guy gi daane Paaso Ama Balde daan ko dama ne Paaso Siteu ngay bëreel mu ne ma lu tax. kon xamoon nga ne dina bëre moom laata muy taxaw. ma ne ko Siteu ngay bëreel doo bëre guy gi Siteu ngay bëreel mu ne ma lu tax ma ne ko Siteu xale la. am na fulla am na fayda yàlla may na ko mbooloo am na loo xam ne lu lu mag mënta am moom mën na ko am ndax mbooloo mi ko topp mën na mën na choisir adversaire te la ngay am ci koom ci Siteu Siteu wax na ko keroog junj na ko paasoo keroog seen jàkkaarloo bi mm-hmm. doo ko am koom ci keneen kon sa combat ak Siteu te Siteu bu la daanee dafay bàyyi xale yi romb leen dem ca kaw mm-hmm. mais bu bëre xale yi xale yi daan ko dootu mën a ñëw ci yow mm-hmm. mais boo ko daanee du ko te tey mu bëre xale yi mais bu la daanee jéggi leen ñoom ñëpp avantage kii dina fi am xaalis kii dina fi am aw tur ak bunt su ko yàlla joxee chance mu am ci leneen. voilà léegi passé bu daanee dellu fa mu nekkoon surtout euh, euh, ñaan ma ko yàlla bu daanee rob bàyyi fi xale yi dem ca kaw. d' accord papa saw su daanee dellu fa mu nekkoon mais boole ca am ca xaalis. Ah, ah, ah, am ci koom. loolu noonu noonu lay demee loolu mooy dëgg. Siteu champion la dañ koy dañ leen di ñaan yàlla yàlla may leen wér. Mhm. may leen tal. ba su làmb ji li ñaan. Mhm. Papa Sow daan Siteu jël bu amul benn werante mais wax ñëpp ñëw ci jàmm ak salaam waaw loolu la ñuy mais papa nag fii mu ne actuellement macha allah mel na ne mi ngi liggéey. waaw loolu moo ko war ndax moo ëpp sax sax Siteu moo donc mais nag lépp sans pression relax entraîné ñëw bëri li nga war a bëre loolu moo ci nekk incha allah. waa jërëjëf tey nag euh, maa ngi ak kooku ma leen wax rek nga xam ne kooku lu baree baree baree baree baree bari ci moom suñ ma woowee mën naa ko cee seere ndax dama koo fekkee ndax nee nañu loo mun rek sunu borom war la aw yoon doon tamit ku yàgg ak lii muy def ñu ne yàgg bawul dara ndax su njaab yàggee nga war feeñ Max Mbargane nuyul mbokk yi internetu senegal set yi ma dugg ak yow ci waxtaan. waaw di leen nuyu rek euh, di ko jaare ci yow nga xam ne yow suñu mag nga ñu yàgg lool lii ñuy euh, yëngu nga tette ñu ci xam ko kon boo nee ba di ciy yëngu jox nañ nit ki lu mu xam euh, di leen nuyu di leen këram di leen sant. Max Mbargane ca Caaroy Géej Max Mbargane Ousmane Diop Max Mbargane Xaadim Ndiaye numéro un Max Mbargane Issa Puy Max Mbargane Baye Mandione Xaadim Ndiaye numéro deux ba ci mbër yi nga xam ne yëpp jaar nañu Caaroy Géej ñu ca baree bari ñoom Max Mbargane loolu nag ca jamonoy Mass Ndiaye la Mbaye Guèye ñoom Alla Guèye mu bëgg lool li muy def mën ko lool ba daan ci ñoo xam ne ay ténor nanu ci lam ji ndax guddeem nga ak zàlloo <laughs> defe naa guddi gu waar la fekk ko fa mu dëkk ca faas jaar ci kawam kon tey kii defe naa suma seen ma laaj ko max mën nga maa nettali tuuti ci gune gi nga xam ne moo am combat bi nga xam ne moo nu dajale tey muy Siteu ndaxte dafa nekkoon uh, ndaw ba ngay sos écurie ba ndax yow yaa ko defar écurie lamsaar yaa ko taxawal mu nekk fa ñeme a bëre dem ba mujj muy bërintu dem ba mujj ñu koy daan ñoom ne ko réel ñoom seenteel baay Ndiaye ñu dem ba tey mu të doon mbër nettali ma tuuti ci moom ak fu mu jaar ak noo liggéeyee boobu liggéey. waaw euh, mbay Ngoné loolu dama ci sawar a wax xam nga ku mel ni Siteu bi ma créé école de lutte Lansar nees moo ma ko indil mu tuuti lool. moo ko xool na nees kii tuuti na mu ne ma bàyyi ko xel ma gis bu duggee ci xale yi ndaw yi du du neex a daan euh, ma xam ne xale boo xamante ne nii bëre ne na ci deretam mujj gi sax laa yëg ne euh, Yékini nijaay la ci moom ndax nijaayam bi nga xam ne ci la doon doo mbër gi drapeau bu ne jël na ko ci laa xam ne ndaxte am na don boo xam ne bu ne ci nii rek danañ leen ne kii dere bëre ci deretam la ne euh, mu doon xale bu tuuti nag. di ko tàngat mu yaroo ci keppaar boole ko sama idole mu ne ni ko réel bi nga wax léegi mm-hmm. nee na mooy idolam euh, di xale bu nangu nag mm-hmm. euh, ñu teg ko ci yoon muy rampe suy bëree combat simple yi simple yi day fees del mm-hmm. mbooloo topp ko mbooloo duñ topp ko mënul dara Babacar euh, kooku daal mooy Siteu ba premier combat mbay vingt ans la bëreel ñu topp ko nag di ko teg ci yoon di ko tette ba bi mu dajee nag maalaw seeraas ci la feesal Iba Mar bala ne ci biti ëpp li ne ci biir ñoo xam ne xajatu fa ci xale bu ndaw moo tax du hasard ñu tuddee ko la phénomène ndax mbooloo mi koy topp loolu mbiri sunu borom la jagle la day am sax ba ci malay yi. mais man li ma ci gën a jooy gën ko cee jooy mooy doon ne nit jabar aw fas akuk jur ngor daf caa baax te moom dafa am ngor ngor mooy lan mooy jom jom mooy lan yaa ngi koy jëlee ci jikko doon koy def ci yow damaa gis. Ah, ki nga xam ne moom mooy caat bu booy bambara bëre naaru sogaas daan ko muy jooy di xataraayu laaj naaru sogaas daal koy daan na mbay géey la tigre dafa defoon ci diggante maam góor gi njaay ak Robert. waa xam nga caat magam la da doon def ku daan caat rek mu bëgg a jël ma ne ko nag làmb day tol ma boo xamante ne nii dootu leen bokk yoon yaag caat ne loolu la la bëggoon a def ku daan ci at mu bëgg a bëreeg yow euh, loolu nag mbokk koy waral deret koy war deret ko waral euh, loolu nag jaadu na euh, mais bañ fa jógee caata ngi bay waaram d'ailleurs jóge ci ndam lu rëy moom caat daan armé ba mi ngi waajal ko maam ak Modou Dia mais ñoom liñ bokk mënuñu koo séddoo dañoo bokk waaw waaw Siteu nag jóge fa ne ci yoonam ci yoonam ba yàlla def tey am bis bu mag bi du hasard ji nga dernière sortie ni mu def amitié. gis nga ni muy def Demba Diop xale boo xamante ne mbooloo mi koy topp ñun sax dañoo dépassé parce que léeg nga tudd mbër yu mag yi da nga naan cent car cinquante car Siteu su amee combat taxi yi li ñuy liggéey moo tax taximaan sax dañuy yàkkamti combat ndax course loo laaj ñu def ko kalandoo yi ñëpp ay liggéey ci ay combat ndax duñ gaaree te VIP doon Euh, otesu rek dañ ciy def ay quinze mille vingt mille doo ko ñëw dagg billet loolu nag mbir sunu borom la mais loolu di ci gërëm nag sunu sëriñ suñu xarit di sëñ Sidi ndax euh, am na ci ñoo xam ne topp nañ ko ngir mbër gi ñi topp ko ngir deret mais ñi dañ ko topp ndax mbokku day seen mbokku taalibe mm-hmm. dañoo bokk sëriñ mm-hmm. mooy waral mbooloo mi koy topp mm-hmm. euh, muy xale boo xamante ni daal moom mbiri sunu borom la waa mu nangu taalibe ga lool nag di ko jëfee waaye dafa am ay nit yoo xam ne doon maa dab déy ma ne dafa gore lool doon ba junne kub dërëm la yemale ci mbër. waa xam nga seen waa kër daanañ wax soo ñu bëggee dimbale xaalis bu mu dem ci ay xaritam bu foo demee du yegg ci kër gi moo tax ñàkkul dara ñàkkul dara mbay kay ñàkkul dara euh, macha allah avance bi yeggali na këram a nga woon dëkk air plus ma nga dëkk fat ay way juróom te ku ne loolu ngay wit tey te moom commencé gul carrière sax. Ah, defagul carrière moo tax nay du dugg aljanna. am ah, nay du dugg aljanna. Ah, kon ba kon jox. daa defe ne moo jox boppam déedéet programme bi yàllaa ko yor programme bi yàllaa ko yor de mooy yàlla du jeexal dara li muy joxe amu ci soxla te boo ko laajee mu jox la. am nay du dugg aljanna mukk mukk mukk mukk daa defe ne moo jox boppam ta te nay bu la ci kenn ndax dee guddi sax ko arrangé. ndax day fanaanook tab day wax su ma xëyee naa joxe waaye bu yow rek dellu ci na dellu ci jikko <laughs> jërëjëf Max Mbargane kooku Max Mbargane dégg ngeen leen waxtaan léegi maag moom ma yar ko muy koo xam ne su lii amutoon kersa dinaa am dinaa am gàcce waaye kii kii yóbbu naa ko fu nekk jàpp cib loxoom ñu jéggi ay ñag mu daan ay champion yoo xam ne ak a naqaree daan Max Mbargane di ko nuyu nag di nuyu mbokki jolof jolofam yëpp waa Kalloo Seeg ñëpp képp ku dëkk jolof ndax xam ngeen jolof moom fa la lépp jóge fa la Alboury Birame Penda Ndiémé jote dëkk te ñoom doon ñoo xam ne doonoo wattu alxuraan ca jolof ñu ràññee leen bu baax a baax maa ngi koy gërëm di ko ñaanal bu baax a baax Max Mbargane soo demee nga nuyul ma Siteu incha allah ñu ngi lay xaar nag bis ba nag sa diggante ak ki nga xam ne moom mooy Papa Sow bu Faas. waa jërëjëf euh, mbokk yi tey maa ngi euh, sama mbokku Bawol Bawol Lambaay Lambaay Cheikh Ndiaye ku xam Lambaay rek xam ko. ku xam sëñ Mbay Cargaan xam ak njabootam di nga xam Cheikh Ndiaye ndax Cheikh dafa dëkk Làmbaay bokk ci sëñ Mbay Cargaan moo tax ma ne ku xam Làmbaay di nga xam Cheikh kii surutoon làmb sax su nu dàqee ñooy bokk ñibbi diggante mbetta sagoog wéeru gën a guy ndëngeeg sumpas ñeex ak mbal mi sëy kii day koo xam ne dafa yàgg ak làmb yor nag ay mbër yu bari yu nekkoon Fass ak yu nekk Fass waaye ma cité rek li nga xam ne moo taxaw nekk sunu kanam ne joon nu waxtaan ci loolu muy combat bi nga xam ne mooy diggante Papa saw ak Siteu te moom mu yor ki nga xam ne moom mooy Papa saw Cheikh mm, ba kañ nga yor Papa Sow bon Papa Sow bi ma koy yor boobu lay débuté boobu mu ngi bëree vingt mille francs bu ma joxee avance dix mille francs bu ma ñëwee CNG ñu jox ma reliquat dix mille waaw boobu laa yoree Papa Sow ba tey ba bisab tey ji waaw. yan combat la bëre ci CLAF. waaw combat CLAF bi mu bëre mooy combat Modou Paul Maurice Papa Sow ah, am na des na benn quatrième de. Euh, je ne me rappelle plus ci quatrième bi mais. Ah, foofu xamante nga victoire yam fa am. waaw moom moom moom moom euh, kii rek kii moo fa daan. Euh, Modou Lo moo ko fa daan. Ah, ñool bët nga daanaat yan bër. ma daanaat Paul Maurice. Euh, ak beneen adversaire bi am naa ñaari victoire. nga jóge fa yan combat nga bëre waat waaw combat yi ñu bëre waat moom wax dëgg yàlla bari na. Mhm. Mhm. waaw. fi mu ne combat bi nga jëm nii lan nga ci wax ñi nga xam ni supporters yi ak fan su waaw kon comme li ma leen daan wax rek bu ma combat bi ñuy jëm nii bon supporters yi nañu ànd ak dal mobiliser wu euh, bu ñu yéegee supporter seen mbër. waaw surtout surtout nag fans club bi waaw. Ah, nekkatuñu Fass de. waaw nekkatuñu Fass ñu ngi parcelle léegi nag. dañu am nañu benn 100 pour cent parcelle foofu. Mm-hmm. waaw. mais Fass tamit ba léegi am ngeen fa dara. Fass it am nañu fa ay supporters. Mm-hmm. bon Fass Colobane Gueule Tapée yëpp am nañ fa ay supporters. yaakaar nga ne tey dina am ay mbër yu jóge Fass ñëw ci papa. ah loolu nag moom wax dëgg yàlla. Ah, su bis ba. Euh, wóoruguma daal am na fa ay wóllëre de ba léegi. am na fay wóllëre mais nag wóoruguma ndax dina am. ay mbër yu jóge faas ñëw ci moom ñuy jóge faas ñëw foofu waaw ndax ak jógeem faas jotewul dara ak euh, mbër ya waaw déedéet hmm? déedéet te am na fa ay kóllëre waaw am na fay wóllëre moom wax nga wóllëre yooyu ñëw ah waaw mën nañu ñëw comme mën nañu bañ a ñëw rek hmm. ça dépend ñoom moom mais amul ñoo amul amul ah, ak faas euh, xaar ma yàlla bu tee euh, ñenn ñi ñenn ñi mën a ñëw ñëw ñi mënul ñëw xam ne mënuñu ñëw quoi est-ce que yaa ngi benn mbëru fas bu dul euh, Papa Sow ma fa nekkoon te jóge fa. waaw euh, généralement ko engagé waaw boo gaa it. wax gaa ma nga Fass. waaw am na am na certaines mbër yoo xam ne nii ñoom maa leen di engagé quant euh, yeneen mbër yi nag bon xam nga fas moom dama fa nekkoon benn Gris Bordeaux rek laa fa yorul woon waaw. mës ngaa yor Balla Diouf. Balla Diouf maa ko yoroon. Balla Diouf maa ko yoroon. mais à part euh, Gris Bordeaux. bàyyi làmb maa ko yor waaw moom it la mu ma wax li ma li ma Papa wax la ma waxoon moom ba mu ma joxee licence am la ma ne sama licence euh, joxuma ko kenn ku dul yow waaw te fekk may bàyyi làmb yaa may signal benn combat laa ko signalul mooy bi mu demee yoof bi mu demee yoof waaw bi mu demee mm-hmm. boobu laa ko signalul combat boobu mais yeneen combat yëpp maa ko signé. Euh, manager bi nga xam ne moo yore Papa Sow nekkoon Fass nag wax dëgg yàlla ba léegi Fass sax cité na ay mbër yoo xam ne moo leen fa yoroon ñoo xam ne ba léegi ñu ngi ci loxoom moo leen di engagé moom laa doon laaj waaye gis nga wax ju rafet yi nga xam ne moom la wax tamit di leen ci gërëm bu baax di leen sant yéen di leen ñaanal bu baax di topp nag euh, tey li nga xam ne moom moo nekk ci biir CNG bi euh, muy bon finalisation bi nga xam ne tey doon finaliser combat bi yëpp. Pape Abdou Fall ngi ci biir ñoom njàmmee waa CNG manager yi Max Mbargane mi ngi ci biir ñoom ñëpp ñu ngi ci biir tey looloo ma yëkkati nan leen dem ci biir nag daal di xool nag li nga xam ne moom mooy signature bi nekk ci biir nag donc waa CNG yi ñu ngi nii di xaati xaatimu jublu si mais bala maa wax ci mbir mi damay wax ci suba nga xam ni suba la face à bu mag bi face à bi nga xam ni ci lay Siteu ak Papa saw door a jàkkaarloo nag war a def seen show may wax na waa jàmm gën a ndakaaru ñëpp mobilisé wu ci côté Siteu Papa Sow waa Parcelles ak Fass ak ndakaaru na ñëpp mobilisé wu ñu def ko mu doon réussite parce que événement la boo xam ni Pape Diouf a nga fa Ngaaka Blindé ngi fa Diamane Express nga fa ay troupe folklorique yi folklorique yi ñu ngi fa vraiment muy loo xam ni événement la donc dañuy ñaan rek ni ñëpp ñëw ñu ànd def face à bi ci jàmm ak salaam. bon euh, cent pour cent kenn mënu ko am yàlla rek moo ko am mais jël nañu suñu ay matuwaay euh, saisir nañu ministre de l'intérieur donc ñu ngi ciy liggéey jël nañu sécurité locale aussi. ñu daal ñaan yàlla mais sécurité war na sax mën a ñàkk bu ku nekk defee li nga war a def àndu ci yar ak teggin tegu ci siraatal mustaqim lépp dina rafet incha allah mbër yi amuñu problème mais ñiy ànd ak mbër yi foofu la équation bi nekk dañuy ñaan yàlla rek suturaal ñu euh, te it ñaan euh, yàlla dinañu suturaal incha allah loolu am naa ci yaakaar nañ leen ànd bokk ndey bokk bàyyi euh, nga defar ma defar keneen defar ku nekk xam sa lettre de mission et puis li ci des mbir yàlla la daal ah. defe naa di kii rafetlu woo li nga xam ne moom moo xew bër ki dem ci diggante ñax jariñu ak Alioune Seye bon euh, du lu ñuy rafetlu mais xëy na ndog-ndog la euh, yàlla bu mu amati daal la ñuy wax waaw xam nga comme ñun dañoo ne ci gaal gi nekk ci biir géej gi day jaadu rek ñu seet nu mu rafete rek ñu daal di wax daal ah ñaan yàlla daal ci lii ñuy dugg ñu génn ci ci dugg ci bismillahi rahmaani rahim ñu jeexal ko ci alhamdulillahi rabbil alamin nañu taxaw xaar rek xam nga lañ ci lañ ci moom bu ne ci gémmiñ ah tànk génnul mënoo xam lu mu doon daal. waaye gars yi dafa am lu ñu dégg muy ruumandaat waaw dégg moom gars yi dañuy wax rek waaw mi lañ ñu may rek ñu ngi ci liggéey bi ñu ngi ñafe ñu ngi góor góorgóorlu yàlla baax na daal laay mën a wax. gars yi bëgg na nañu affiche yu mag a mag de. bu soobee yàlla daal deuxième euh, combat bi ñu bëgg daal yaakaar nañ mu doon mu doon affiche bu mag incha allah am nañ ci yaakaar. alhamdulilah rabbil alamin loolu Pape tey su demoon ba sunu borom def mu antu ban mois nga ko. non juillet la xam nga bu ñu jógee avril kay juillet rek la ñuy mën a def leneen quoi waaw li ñuy ñaan yàlla rek jàppale ñu mottali suñu yéene. ah junj doy na boromum xel yàlla na ko yàlla ak yonent bi ak sëñ Touba Cheikh lu Khadim ak ay waajuram jàppale ci li mu nësër te nga xam ne ñu ngi ko dëgmal juillet te yàlla dina si def jàmm incha allah ndax borom xol bu rafet la. il est habitué di tëgg ay combat yoo xam ne ay événement lay doon na ay combat yu rëy yoo xam ne mbër yi doon ciy gis seen bopp promoteur yi gis seen bopp jaaykatum ndox bi nekk ci kaw ci gradin yi da ci gis boppam ñëpp ciy gis seen bopp kon Pape tey mu ne la ngay wax mbokki internet Sénégal set yi waaw nañ ñu jàppale rek li ci des daal mooy ñun promoteurs yi ñu ngi créer ay événement ñoom it ñu ngi koy jël di ko exploité du dëgg suñu xew lee daal nañ ñu jàppale ci promotion bi ci communication bi donc loolu dina ci baax daal.